بسم الإله الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi finin الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك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 noo ngi amaat mbégte di ñëwaat ak yéen ci seen émission bi ñu duppee ëttu murit eh, te muy am alxames yu jot bu vingt heures tegalee eh, fanweeri minit ngeen di ci ànd ak seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll jàkkaarloog yéen ci wàllu image bi El Hadj Fallou Syll El Hadj Fallou Sow nekk ci wàllu caméra yi eh, ñu jaajëfal bu baax a baax bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen émission bi weesu ci émission Serigne Maniaw Syll jaajëfal ci bu baax a baax sëriñ Saliou la imaam mi ñu ci dalaloon eh, ziare waat sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaanal ko ak yàgg gu ànd ko wér noonu lañ koy ziare sëriñ Sidi Mbacke jëwriñu kër Cheikh Abdoul Ahad waaye di kilifa Mbakol ziare bu baax ay rakkam yëpp di beral ziare nag sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou mi nga xam ne ci ëttam lañu nekk fii ci Touba Njaareem ci kër sëriñ Saliou Sylla imaam mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen sunu ñaaru ñaareelu numéro ci sëriñ Maniaw Sylla ginnaaw bu ñu dégloo diggante sëriñ Mañaaw Sylla ak alxuraan diggante sëriñ Mañaaw Sylla ak ay bokkam ba ci ndénkaan lu mujj loolu nga xam ne déggoon ngeen sëriñ Saaliwu Sylla nam ko yëkk woon ci buurub àdduna boobu la ko sëriñ Mañaaw wax ginnaaw bu mu ko teralee teraangaam ju réy jooju ba noppi nag wan ko ne nag man ngaa dem ci samay bokk koo xam ne dana am yéene teral la waaye kattanam du agsi fu ma agsi su boobaa nag bu la ko xeeb bul ko ko xeebal te bul ci am meneen pexe mu weesu rek jàppal ne dama ko ëpp kattan ndax boo ci amee meneen nañ pexe sama kaw ngay dal kon gis nañ ne nit ki mën naa ëpple ay bokkam waaye mën leen a ëpp noonu sëñ Mañaaw jëfandikoo na ko kon ñu dellusiwaat rek dalalaat sëriñ Saliou la ñëwaat nag diggante sëriñ Mañaaw ak sëriñ Touba eh, sëñ Saliou ñoo ngi lay nuyu. ñu xëy nuyoo a bari. Mm-hmm. lu gën a bari. di waaw eh, jërëjëf sëñ Saliou. tey nag dañoo bëggoon ginnaaw ba nuyoo noonu ba noppi nga ñëwal ñu diggante sëñ Mañaaw ak sëñ Touba ndax sëñ Mañaaw ak àndam ak sëñ Touba bi sëñ Touba wootee la wala yàgg nañoo ànd laata sëñ di wootee waaye bëggoon nañu xam carrément diggante daal sëñ Touba ak sëñ Mañaaw si la. waaw foofu nag moom mbir mu mm, yéeme la ndax sëriñ Mañaaw sëriñ tubaa dañoo mësula tàggoo. Mm-hmm. ba ñu ndawee lool booy soox seet seeni at romb juróomi at juróom-benn at lañ taxoo. te ñoo xaw bokk at mun gën a àdduna. waaw ndax xam naa mënumaa takk sax bu sëriñ bu mag bi ay sëriñ ma la waxee. mille huit cent cinquante mm-hmm. xam naa du soreek moom. Mm-hmm. wenn at ñaari at ko rombante. man naa am nag sëriñ bi féetee ko ko. waaye moom mos ñoo tàggoo dañoo ko taxawoon ndax seeni waajur a taxawoon. muy sëñ Mor Libaas. ak maam Mor Anta Sali <laughs> ñoo tax ko woon. Mhm. ak sëñ Bousso bi. ak sëñ Bousso bi. Mhm. sëñ Bousso bi moom moog sëñ Mor Libaas ni ma la ko waxee rek ñoo doon dem gànnaar. allahu akbar. fenn fu ñu leen mast yóbbu ñoo fa daa bokkoon ne ba ci poroxaan gee ñoo fa bokkoon ne bañ bañ fa bañ fa demee. Mhm. Ah, maa ngi ci nettali sax lu yéeme loolu dafa am benn bis ca booba ndawee nañ lool ci àll waxtu wu takkusaan. sëriñ bi. moom sëriñ ma ñaaw toog sëriñ Touba. am benn. sàmm du ma tudd pël du ma tudd sër ab sàmm la daal mhm. ñëw toog ak ñoom ñuy waxtaan ba nga xam ne sëriñ bi ubbi na téere bi ba dal ci wa isaa xiila lahum urkaxu laa yarkaxuun mhm. mooy xool diggam ak alxuraan dal ne say miñaaw suñu waajee nee ko na waaj ñu julli te nga nodd ba mu koy waajal nu julli mu ne ko maa ngi ñëw sëñ miñaaw noddal sëriñ bi li xamal ko ñu ànd julli sàmba dem sàmba dem mu daal xam ne kon dëgguk ay alxuraan ji ci moom allahu akbar alhamdulilah. Mhm. Mm-hmm. sëñ Mbacke Fadiama ci boobu gën nañoo ndawe. boobu nag nee naa juróom-benn at juróom-ñaari juróomi at romuñu foofu. la ilaha illallah. Mm-hmm. sëñ Mbacke Fadiama daana nettali lu mu jëlee woon ci waajuram. Mhm. Cheikh Astawaalo. Mhm. mu ni ko toog naa jataay day Serigne Touba ne bu ma doon tudd sama taaw taalibe sëñ Meñaw laay tudd ndax moom laa njëkk a jox ndigal mu jëfe ndigal la kon tax koo ga yàgg la. waaye nag tàll ay loxoom ni jébbalu naa mm-hmm. dafa am waxtu mu ko defee mm-hmm. li ñuy taqoo taqoo mm-hmm. ndax taqoo nañ jëflante ba lu ne dox seen diggante te baat bii nga xamante bi mooy bi sell te gën a rëy bu jibee baatin la way ji bëggutoon saayir loolaa waral ba sëriñ bi demee ci tukkeem bi ba ñëw diggante ñaxal yooyu di ñaxal caafura ñaxal daqaar këma ñaaw kër mustaf bu xëyee fii dem fii bu xëyee fii dem fii diggante caafura ak barabu li ba asban mm-hmm. suñ bi na fa fukki fan ak ñaar fukk ak fukk ak ñeent mm-hmm. lu bare bari xew na fa mm-hmm. waaye ci jomam moom suñ ma ne dafa waxoon ni rus naa daal sëriñ bi waaxu ba ci sama ëtt ma di ko fi taalale sama loxo oh. ba sëriñ bi jógee foofu jaar kër Mandoumbe jaar kokki ba dem daaru salaam jóge fa dem daaru mën naan mën naan ba jóge fi dellu gànnaar làmbi sëriñ bi ne woo mbokki mbaakool yépp ne man kat dafa am lu ma natt te xalaat ko nan ko bokk seet nu bokk seet def seen waxtaan biir mun leen kon nag dama bëgg léegi ñu dem ci sëriñ bi jébbalu ci wax nañu bi muy dem am na juróom benn gawar ak moom mu ñu juróom ñaar ba mu demee ba àgg teg fekk na waxtu julli bëgg a jot waaye jotagut mu bokk dàllam ya ak kaalaam ga àgg suuf sëriñ bi tàllal ko loxo ba mu nuyoog moom sëriñ bi bég lool ne ko moom sun bisee ca kër ma kala sun bisee ca kër ma kala fekk na xam naa boobu bañ fa dajee mhm. sëriñ bi ñëw defal na ko ci teraanga loo xamante ne des na ci xelam mhm. ni suuti ñu noddu ñu julli ba noppi mhm. biñ jullee ba nga xam def nañ seen lawraat nag ba toog nag sëriñ bi ñëw ne ko bu ma amoon ndigal day wax àggale sama yoon sëriñ bi ni ko bisimilah mu ne ko man maag samay bokk hmm. dañoo péncoo daje waxtaan seet seetantal nit yàlla yi ñu xam hmm. yépp ñu xool leen xoolaat leen hmm. gisuñu ku nu gën a doy as yow kon sama yoon wi tey dama bëgg a dikk ngir jébbalu ci yow def la ngay wasila sëriñ Tuubaa ne ko walima saaka maa annakum antum ahlul quraan wa ahlul quraani hum ahlullah ma loolu ko waral ma ñaaw yéen yéen nit yi alxuraan te nit yi alxuraan alxuraan ñoo ñooy ñun yàlla suñ ma ni ka danaa la wax loo xam ne benn lënt newu ci suñ borom may na ma juróom-ñaari payam yii ma di ci dem amu ci benn pay boo xam ne mos naa caa dem fekk la fa mbaa nga fekk ma fa loolee nag taawilu mu ko leen lu gën goonu gën te gis naa ni ku jëm ci suñ borom mënta ñàkk day am wasiila moo tax ma dikkatee jii ngir jébbalu si ci yow sëñ bi daal koy nangul mu joxe ak njébbalam. Allahu nag. dafa am lu sëñ bi tàmbale woon ak moom waxtaan fa la ko mottalee. ndax bi ñu doog a ñibbisi ca tukki ba. ba njëkkee gisee sëñ bi waxoon na ko waa ma ñaaw noo def ak téere bi. muy ko bëgg ko lool. di ko jàng guddi ak bëccëg. mokkal ko di ko mokkal loo nit di ko taxawee di ko xereñe guddi ak bëccëg. sëriñ Tuubaa ni ko waaw téere bi ñaata maskaa ci ne. sëñ mi yow daal jëfandikoo xelam xam ne lii ko sëriñ bi laaj kat daam lu ko bëgg a jàngal waaye du laajte boo xam ne wetam loo ko waral mu ne ko xóomu ko ca saasa rek sëriñ Tuubaa ne ko téere bi ñetti maska rek ci ne li ñuy wax xarakatu fàtti muy maska ak yat xarakatu dammi muy maska ak lonk xarakatu sukkani muy maska ak niig ni ko maska ak yat gii day taxul kenn ku yàlla yónni woon sonn ndax ñoom seen mbir leer na la yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun hmm. ulaayika alaa hudan min rabbihim wa ulaayika humul muflihuun ak texee seenu mujj dëgg la ni ko maska nii hmm. woon hmm. ndax ne seen biir ba jeex inna allazina kafaroo sawaun alayhim ansartum am lam tunsirum laa yuminuun xatamallaahu alaa quluubihim wa alaa wa alaa absaarihim xisaawatun wa lahum bi nekk maska lonk gi ñu yàlla yónni woon dañu ne yëngutu farlu balonk gi ñu tàllal ko mu nekkook maska get nekkook fataa ba mën a daanu ci wulee ko muflihoon iblis ak kuréelam nee nañu yokk sunu ngóora ak sunu farlu ba kabb ko ba mu nekk maska ak néeg ba daanu ci xasaabun na te mask ak lonk googu nag mooy wa mina naasi man yaqulu aamanna billaahi wa bil yawmil aaxiri wa maa hum bi mu'miniin yuxaadi'uuna llaaha wallaziina aamanuu wa maa yuxaadi'uuna illaa anfusahum fii quluubihim maradun fazaadahumullaahu maradan wa lahum bi mu agsee foofu fii nag moom sëriñ bi ca gànnaar nag dafa mel ne la ma ko doon wax daa jeexutoon ndax loolu lañ waxante woon fii ci réew ma sëriñ Tuubaa ne ko naa xam ne boobee ma jógee ca réew ma dugg gaal jéeri ba dugg gaal géej ba tong ba tollu konga la ma alxuraan addis dab man leen luy seeni tànk ñun dañoo gàddaay ndax bëgg ak yow ndax fee ci réew ma kat dañu fay jàng dinu yàq dinu foye ba xajootuñ loolu sëriñ Tuubaa man leen dangeen di dellu damay dem te dellu si bu ma dellu see kenn duutu leen foye kenn duutu leen yàq loolu nag neex naa xam lool neex naa nangu lool ndax gis nañ ci leetare alxuraan yi kenn xamut muy alif lam mim yi ak xaa mim yi ak alif lam raa ak alif lam mim saadi ak saadi xaaf am na alif lam mim goog na ba ko sëriñ bii firé dafa ne suñ borom moom firil alif gi ci awrastukal kitaab laam gi moom ko firil ci laqantukal gi moom ko firil ci daal di ko ne kon nag ma ñaaw na nga xam ne hmm. alxuraan sama moomeel la bis naka tey rafaatal naa ko eh. foofu laa wax ni nag loolee nag la alhaaji Mouhamadou Fadil dund lool hmm. dundin woo xamante ku bokk ñaxeel ameel nga ko ci jaajëf hmm. te jaajëfi ñaxal ak euh, sëñ alhaaji Mouhamadou Fadil kat war naa rëy ndax ñi miinub jataayam day daana toog bu yàlla si ne dug dugg dugg mu ni nguy na xitti ca mbaakool ndax ñoo joxe te duñ laaj dëgg la ku baax ki njëkk a sëriñ Serigne yi di Serigne Modou Moussa wër na mbaakool ay yoon waaye nee na dama faa yéemu ndax la ma fa yéemoo ñett ya ba tey ji gisuma ku ma fàtte ñetteel ba ñaari moom leer leerlu naa ko ñetti yëf laa fa dajal yu ma yéem benn bi damaa toog benn waaye ñëw nuyoo ak man ni ma man de damay silmaxa sedd bi bëgg agsi ma ragalub sedd bëgg ku ma sarax mbàjj beneen bi ci des. mu dikk ni man day damay ab silmaxa amoon doom muy jàng. ba toll ci wàcc ma di ko yalwaan ab kaamil. ku ma ko sarax. am na bu ko ñetteel nag waaye fàtte naa ko. waaye xam naa lu mën a xew rek. lu yéemoon sëñ mu Moustapha la te neexoon ko. allahu bi nga xamee nag ko njébbal ga mat na. Mhm. sëñ Meew toog fa ay fan. Mhm. ba ko sëriñ bi waaye nag di nga yeewi ko ngir mu dellu si mbaakol. Mhm. sëñ Meew defaat na mu defoon sàkkuwaat ndigalaat. ngir wax kàddu ay war a sëriñ bi. sëñ may mu ne ko maa ngi lay leeral ne. sa barab bu sell bu tedd bii ma ñëw ak seen jëmm ju wegu jii ma jàkkaar lool barab bi de moom wëralewu ma ko ak madinatul munawwara bi anwaari sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa jëmm ji itam wëralewu ma ko ak jëmm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waral julli gi ma njëkk ànd ak yow julli ba gii ma jullee ko yow léegi wëralewu ma ko ak man mu toppoon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli sëriñ bi laaj ko ko mu wax ko ba mu laaj ko mu wax ko ba mu ñetti yoon ma ne ko wax nga lu dëggu woo ma naa tabe ci nga wax lu dëggu ci yow la waaye nii nga xame hmm. waxee ne nangoo ne. Hmm. bu ko ñépp defoon seen adduna baax seen alaaxira koy raw. la ilaha illallah. kon njëbbalu gànnaar gi noonu la doxe hmm. bi nga xamee ni jóge na gànnaar yi ba dellu si ci réew mi. ba sëriñ bi ñëwee ba dem ci yéen. te fekk na gànnaar it sëñ bi yablewaat na fa yoon ñu siyaare ji. waaye dafa am bis. mu ne ma demul maa ñàkk fekk sëñ bi ci ba mu waajee bay dem daal dina jomb naa dem ca sëriñ ma mu di ma laaj maam Thierno may waxe wax wolof naa ko nuyu na la te gisuma ko mm-hmm. nan fa jaar mm-hmm. ma nga ànd ak ki jur sama bàyyi di sëñ ma jëma si la booba mm-hmm. ne bañ demee nuyoo borom daru mu ne ko damaa jëm ci ku baax ki te bëgg ma mu laaj ma la te fekk gisuma la waaye man da am na lu ma la doon laaj bëgg ku ma ci dimbale mu ne ko mu ne ko yéen ñi mbokkum sëriñ bi lu mbiram danoo jaaxal mu ne ko maam Thierno ne ko waaw mbiram day ni mu leen jaaxale ne loonu ni ma la ko mën a misaale mi ngi ne néegub kaaskar bu def ñaari bunt bunt bi si Abdou Khadre Jeylaani jaar na fi ba jàll bi si Ahmad Tidiane jaar na fi ba jàll amuñu lu may ñu fitt bunt fu bunt mustaaw ni ko aw fi mu aw fa ñun ko yaa njëkk aw yaa mu mujj kon duñ siq ak moom dara lu dul ak taalibe te sëñ ma jamo mooy ma tudd nga xam ne moo jur sama baay di ñaareelu xalifab sëriñ Mañaaw mhm. lépp loo xam ne sëriñ Mañaaw am na ko ci sëriñ Tubaa ñoo ko sëñ ma daa jébbalu sëriñ Touba mu jébbalu ci. bi nga xamante ne bii sëriñ tubaab mi ngi eh, njaareem. ci loo xam ne sunu sang ba sëriñ Saliou moom ko nettali. daf ka daa woo di ko fa téye ba mujj muutal ko fa keesu boppam mbaarum boppam moo xam ne lu waaye gàtt gàttu mopp da dégg mbaarum sëñ meñaaw ma te mbaar ma daw ko fa liggéey loolu lu alxuraan kon loolu ab cër bu rëy la yaa ngi woon ci yoonu cee àggugut daa jaar ci maam Thierno loolu ci yéen ba dama damaa defoon a daan na ndax ba mu jaaree ci maam Thierno ba wax ko loolu uh-huh. dem ga daa uh-huh. la ca xew ca ko sëriñ bi terale ak na mu ko uh, ganalee uh-huh. bari na ñuy dégg mu ñu di ko nettali te man bokkuma ci ndax dañuy wax ni sëriñ bi rayal na kaw nag te boo bëriwul lu mu koy def waaye daa am uh, ci ay nettali yoo xam ne dama koy tëb dëgg la dëgg la ma bëggoon daal mooy ñu xam ni fekk na ko ci yéen daal waaj dem na ci yéen ba muy jëm ci nag la ko taxoon a dem demub siyaare la waaye ama demub lu gi mu gànnaar la amee woon dëgg la ci biir loolu Serigne tubaa daal di yónnee ci Touré Mbondu ñu wutal fa sëñ Mañaaw ay tool tool yooyu sëñ ma jëmaa fa nekkoon doon ko bay Serigne si Sylla mi nga xam ne moom maam Asta mi jur Serigne Sidi ñoo bokk lépp foofee la gane àdduna sëñ ma jëmaa doonoon jàmbaar joo moo doon soldaaru sëñ Mañaaw bay rek yéta yóbbul sëriñ bi ak fu mu ko soxlaa fu mu bayut diir nag soo sa jeex mbaa mu buyi hmm? ba mu bàyyee Touré Mbondu ba mënatu faa bay sëñ Mañaaw yebal ko mu bàyyi fa ba loola mel ni fa Touré meloon ñu yebal ko mu ñëw boya ba mu ñëwee boya la ko waral mooy jege sil ndax sama sama dem ci suñu borom a ngi bëgg a jege si hmm. yàggu fa dara nag ba mu ñëwee kër ma ñaaw bi sëriñ ma ñaaw noppaloo soreewut hmm. waaye dafa am ku baax hmm. koo xam ne koo tudd ñëpp xam ko muy sëriñ daam atta moom sëriñ ibrahima moom sëriñ tubaa allahu akbar ànd ak Fallou sekk ñu dem siyaare ko ma di ko laaj dara ci mbirum sëñ Maniang wax na ma ci yu bari waaye bi ma ci gën a euh, téye nag tam gën maa neex mu ne dafa am bis sëñ ñëw ci sëñ Touba ko dama lay laaj bis bu ne lu ca gën ndax ma di ko ca def sëriñ Touba ni ko man ndax ma ñaaw loolu xamoo ko woon mooy quoi ah, man kan la ma xam as may njëkk may ñëw ciw du ko yemale ak li ma xamee fi yaw <laughs> sëriñ bi ni ko deel tukki altine. Mm-hmm. di tàmbali talaata. Mm-hmm. di daloo àllarba. Mm-hmm. di fóot alxames. ji ñaan yàlla ajjuma mm. di watu gaawu mm. di sanc dimanche laa xam nga loolu xikkam bu rëy la xikmatun baali xala mm-hmm. mm, ba tey ku baax ki ma tudd léegi di sëñ ma ñaaw ci njaareem mm-hmm. amoon na fa jarbaat bu ko sëriñ bi daa booleel mm-hmm. ñu di ko sëriñ Mbàkke Jaxate duwul ne dàkk sëñ ma ñaaw dafaa toog ndax dafay nekk diir ëllëg mu demaat kër ma ñaaw nee na am na bis mhm. sëriñ bi woo ko ne ko demal wuy ji sëñ ma ñaaw ne booba sax man damaa defee ndaw dafay ñëw woo ma te yëguma ko mhm. ne ma jóge fi dem mhm. ba ma dee mu ne ah njool da ma ne ko ah, ah ko baax ki day ma yabal ni ah, waaw ko daa bëgg ma digal la man ma ñaaw day xomul yu ak mbëkk nekk waaye xam naa nu ñuy nekkee kilifa bul ko nettalil bul ko fabal te fu mu gees doon la gis bul ko nettalil bul ko fabal te fu mu gersu na la gis laa ne ba fa jógee dellu si njaareem sëriñ bi ni ko dangaa dem ba ñëw mu ne waaw mu ne ko gis nga ko mu ne waaw lu mu la wax mu ne ko nee na ma day dangaa bëgg mu digal ma mu ne ko lu la digal mu ne ma nee na moom ma ñaaw doo xamul luy ak mbëkk nekk waaye xam na lu ñuy nekkee kilifa mu ne ko num la ni na la mm-hmm. mu ne ko nee na ma bul ko nettalil bul ko fabal tax mu gees na la gis mu ne ko xàkka saa solo sangoog solo sangoog waaw kon day mel ni eh. ci waxinu sëriñ bi koo xam mm-hmm. lu mas a wax solo rek. dëgg la lu ko neex la. Mhm. lu dëggu la. lu mhm. fees del ak njariñ la. macha allah. ci biir loolu bu fekkee ne mm, leneen mën na cee topp. Mhm. ma dugal ko ci bu fekkee day jar ab di ab diggante ma teg ko ci. waaw li ci li ciy bëgg a topp ndax. li ciy bëgg a topp nag damaa bëggoon a dugg nag ci Serigne Mañaaw ak ñi mu dëkkoo ko njabootam. bisimilah waaw xam nga nit boo bala nga koy xam. dangay xam ak njabootam. Serigne Mañaaw dafa dëkkoo ay soxna soxna ya. ñenn ñi am nañu njaboot ñenn ñi amuñu njaboot mm-hmm. waaye bala nga xam liggéeyam nag da nga xam njaboot ka mm-hmm. soxna yi seen kañu teg ca kaw mm-hmm. tekkiwul ni dafa jëkk ka digg ba tekkiwul ni dafa mujj waaye dafa njëkk ka ca cat lay noonu ndax maa ko bindee noonu waaye danaa njëkk a tudd ki nga xam nag moom moo jur taaw ba muy soxna maam Faati Jóob sëñ ma ñaaw ko da koo ama moom ko ñu wax soxna Faati Silla Mhm. moo demoon daaru Mewndu ci sëñ Abdourahmane am fa sëñ Amsatu ak sëñ Omar mhm. am fa ku ñuy wax sëriñ Muxtaar euh, Mouhamadou Muxtaar Silla mhm. di ko ñëpp xam fees dell ak xam-xam ak baatin tey nitug yàlla dëgg am fa ku ñuy wax sëñ Muxtaar Seynabu Silla moo jur sëñ Mewndu mi nga xam ne nekkoon ak sëriñ Saaliwu te li mu manoon ci liggéey ak ni mane woon ay xasida ak ni manoon a taree lu naqaree mokkal fekk ko ci yombul am na fayit ku ñuy wax soxna Nday Aram Silla moom la dénkoon sañ Mbàkke Jaxate moo jur njaboot ko ak ay fane dëkkoo woon na ak soxna suñuy wax soxna Faatu Bintu Silla mm-hmm. moo jur eh, ñaareelu xalifaam di sëñ ma jëma Silla moom doon soldaaru sénéralu sëriñ ma ñaaw moom mm-hmm. soxna Faatu Bintu moom it am na ak sëñ ma ñaaw ginnaaw bu amee sëñ ma jëma ku ñuy wax maam ndaak Silla mm-hmm. maam ndaa it am na doom ju baax ju ñëpp xam ko ñu wax sëñ Modou Abib Diop ma nga dëkkoon Kër Mandumbe ci seex yooyu la bokk dëkkoo woon ak soxna suñu wax soxna Pende Yéeri Jaxate moo jur kañu wax Matar Saafara ci Tëngéej ak soxna Jëng Silla woon soxna suñu wax soxna Xari Jaara Jaxate moo jur ku mokkal alxuraan ku siiw ko di sëriñ Abdou Abdou Ba Silla mm-hmm. sëriñ Xaarim Silla ak sëñ Mayaw Silla doonoon ko jeexoon tàkk ci saali Saliou sëriñ Saliou daan ko gane par at par at. Mhm. da ko woon ne soxna suñu wax soxna Soda Diop moo jur soxna Khady Sylla mi nga xam ni moo jur sëñ Abdou Akim mu sëñ Bassirou. Mhm. moom soxna Soda moom moo jur sëñ Aliou Sylla. Mhm. di doomi sëñ Miaw moo juri soxna Roqi Sylla. soxna Roqi Sylla moomu. sëriñ Taïba Touré lañ ko dénkoon. da ko ne ak soxna suñu wax soxna Aminata Sylla. soxna Amady Sylla moom moo jur Serigne Cheikh Sylla hmm. mi bàyyi bi sëñ Omar Sylla mu baax ma yor daara ji ca Njaareem hmm. di bàyyi bi sëriñ ma jama Sylla ak sëñ ma ñaaw ma ne kii di maani kër ma ñaaw hmm. moom soxna Aminata Sylla mooy it amoon na doom ju ñuy wax maam Asta Sylla mooy waajuru Serigne sii Abdoul Ahad lu jiitu loolu nag amoon na euh, ñaar ku ñuy wax Penda Law bi Sylla ak Aliou Sylla moom sëriñ Meewe dëkk na soxna suñu wax soxna Ami Silla amu fa doom waaye soxna Ami Silla moom moo jur sëñ Cheikh Kajoor dëkk woon na soxna suñu wax soxna Xuja Paate Silla mhm. soxna Xuja Paate Silla moomu moo jur soxna Mariama Silla soxna Mariama Silla nag moo jur sëñ Muxtaar Silla mi nga xam ne yoonu gànnaar wi ma nettali te sëñ ma ñëw jébbalu ji moom ma ko nettali ak yeneen yoo xamante ne ci biir mbind mi mhm. lu ñu ci bindu li ñu def nañ ci isnaad boo xam ne boo accès da nga xam lii wax ji ñu ngi ko toxalee ci kii kon daal ñii ñu mu jaboote woon lañ mhm. waaye nag sëñ Cheikh Sylla moom yi nga xam ne maanaam soxna Aminata Sylla moo ko jur mu bokk ak maam mi jur sëñ Sidi mhm. kenn du ko romb noonu jàll mhm. dafa nekkoon jëmm joo xam ni loo xam ne sama ba teg na ca yoon moom soxna Amina déedéet moom sëñ Cheikh Sylla ah, mi bokk sëñ soxna Maas waaw bu xëyee teg piliyaan bi ci buntu kër bi mbooloo mi wër ko day jublu penku te damay wax ne bindkat li ci ëpp da daan bañ jublu penku ndax dañuy wax ne day tax a juum waaye moom dalaa jublu penku waaye loolee muy bind nag du ko yàqal waxtaan wi waxtaan nit ñi kaamil bu jeexit mu dal baneen mooy jur ki ñuy wax Baara Gaye mi ñu tuddee sëñ Modou Lamine Gaye sëñ Modou Lamine Gaye moom nga xam ne jëlee naa ci ko baax mu nett li ma ne bu ma sant bind alxuraan. Mhm. fi loxo bi toll. Mhm. ak fi làmmiñ bi toll tari duñ bokk. te làmmiñ bi du yàqal loxo bi. Eh, ku baax kooku nett na ba bind na ba agsi ci ulaayka isbullah mhm. ala inna hisballahi hum muflihun jër xarima ga aj ka ca nopp ba ni sun borom yàlla nag ma woon kenn ci isbullah yi am ku ni asalaamaaleykum mu ni ko waaleykum salaam mu agsi di sëñ Demba Kebe ku siiw kooku ci alxuraan allahu akbar te sëñ Demba Kebe moom nag la sëñ saayu daan wax ni dafa mënoon a jàngale alxuraan lool waaye léeg-léeg gone jàmbat ko ci dóor ba ko baax ci jot ci sëriñ tubaa ni ko njàng mi de yaa ngi sonn yaa ngi koy rafet waaye bul dóor dénk ko dénk ko dénk ko mu ne waaw génn loxo mënatula laal kenn boo ko fekkee te mooy jàng gone yi dañuy wér alluwa ci di ginnaaw gi ñenn ñi toog ci kawam waaye ah, barkeelu kàddu sëriñ Tuubaa googu tax na la mu mokkal loo ba mu bàyyi fitnaal gone ëpp na lool fuuf fuuf lam daan mokkal ba mu leen di macha allah sëñ Saliou eh, jaajëfatal nañ la bu baax a baax a baax diggante Serigne Touba ak eh, Serigne Ñaaw yaakaar naa li ci ñëw bari na waaye léegi ginnaaw yàlla dogal na eh, li li li duuf ci nag wi xajandoowut ci mbana gi dañ koy sóor par par ay morceaux rek. ñëwal nga ci diggante sëñ Touba ak sëñ Mayaw rawatina ci lu ci ëpp ci wàllu alxuraan ñëw nga ci digganteem ak njëbbuloom eh, waxtaan yi nga xam ne daan nañ ko séq pas-pas bi ci feeñ ñëw nga itam nag ci ñi nga xam ne ñoom la dëkkoo woon kon eh, bala ñuy jeexal rek naa leen dese ci waxtu bariwut bëggoon nañoo xam njabootuk boppam gi ñi nga xam ne ñoo ko wuutu bi muy dem ñan la fi bàyyi. foofu nag am na ci émission yu jàll yoo xam ne maa ngi ciy jégalu lu baree bari ndax chauffeur yi léeg-léeg mu xaw am jafe-jafe. Mm-hmm. noonu naa la sëñ Mañaaw mi ngi génn àdduna 1937. defe naa ne bu ma juumul 1852 la gane àdduna. dëgg la. loolu nag boo xoolee juróom-ñett fukki at ak juróom la. yàlla dafa def nag taawam boobu di sëñ Modou Mokhtar. kenn la woon rek ci kaw suuf. déggoon arab lool ba lu newoon ci libaasa ngi ci moom. ba muy marsiyaal sëñ Maña wenn way la def. dafa ne fahum ruhu fajabun fii san sa sin rajabin kasati la tin ilmul wala rabbuna allah waa ji daal mi ngi dund juróom-ñetti fet ak juróom ci kasu rajabit la génn àdduna mhm. ku ma bëgg a laaj nag ban bis la gane àdduna man la loolu yàlla rek ko xam allahu kon moom sëñ Modou Matar moomu moo di na sëriñ Mañaaw mm, maanaam lu tollu ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent mhm. ndax 1966 la génn àdduna mm-hmm. sëriñ Madiama mi jur sama baay moom itam wóotu na sëriñ Madiama fukki at ndax mi ngi génn àdduna 1977 mm-hmm. sëñ Cheikh si la itam mm, maanaam 1992 mm-hmm. fukki at ak juróom-benn la ko la ko wóotu sama baay sëriñ Sumba si la juróom-ñeenti at la ko wóotu ndax mille maanaam 2002 la génn àdduna Mm, sëriñ Balla Sylla mu baax mi nga xam ne moo doon sañ sëñ Mourou Matar moom mi ngi génn àdduna la 30 mars. 2018. moo ko njëkk a ci sët yi. sama bàyyi njëkk sa sëñ Madiama waaw. waaw sëñ Seex sëñ Sumbul waaw. Mhm. kon mm, moom dafay mel ni ñaari at bu tegee lim teg bëreegul. Mhm. ndax la 30 mars. 2018. Mhm. boog léegi yàggul. maanaam moom sëñ Modou Matar moomu nag. ku ci ko ma ne ba moomu nag ba àgg damay sëñ Modou Matar. Mhm. moo njëkk a wutu sëñ ma sëñ sëñ Meñaaw. ñaar fukki at ak juróom-ñeent. Mhm. sëñ ma jëmal si la topp ca wuutu ko. Mhm. fukki at. sëñ Cheikh si la topp ca wuutu ko fukki at ak juróom-benn. sëriñ Sumbul si la topp ca wuutu ko. juróom-ñeenti at. sëñ Balla si la mi ngi génn àddina la 30 mars. 2018. moo ca topp. Mhm. kon moom. day boole kon sëñ ci lay sëñ ma paati si la mi fi ne nag. ok mhm. di ko ñaanal yàgg ku wér di ko rafet xol. Mhm. di ko fonk njaboot. te fonk taalibe tey jàmbaar. te nag ku du jëm sëñ ma ñaaw jarg liggéeyal na la ci kër ma ñaaw. di sëñ Madu di sëñ ma jama te nag am na lu ma jël sax lu ma waroon a wax ndax sëñ ma jama mu jur sama baay daa def bu xëyee day waaxu ba ci sëñ mu sëñ sëñ Madu mu ne ko asalaamaaleykum naam si la yaa dis yaa dib jullit yaa mat kilifa yaa ne xànd te sëñ ma jama moomu nag na nga xam ni moo jago woon at mu ne mooy def ak kartaabalam addee yi topp waa kër sëñ Tuubaa ba ci waa barsàq yi at mi mu ko mujj defee ñëpp daj nañu ba mu dem ba ci gaynde Fatma jox koy addiyam allahu am na sax addee juñ may nettali ju yéeme joo xam ne ñeenti xaritalaa biir la indil sëriñ Ibla at yu yéeme sëñ Matar Fall daanu jëli ñëw ne sëriñ bi mëna ko caañee kat bët ndax lu yéeme ne mosuma koo gis mm-hmm. waaye nag ko yàlla teraloon la nag mm-hmm. ndax lu mu yuutu jot na ko mm-hmm. réew mépp moo fa njëkk a tegalee ñaari birig te saa su sëñ Madou Massane di liggéeyal comme ca feeñu sa xam sa njàmbaar balaa mbee xam di la jox këyit mu la jox bu bees lay doon te faj soxla te na mu koy defee jigéen ñi yenoo ko dikk ak ñay togg ko indi na la koy defee jàmbaaree ca waar wa allah ku farlu rek te doon jàmbaar la sëñ ba jëm bëggoon dëgg la te itam mës sa gis boppam mm. mës sa nangu it ko ko woon boppam mm. ci kilifteef rek la mës di wéy mm. sëñ Cheikh si la mii ma tudd léegi ak suñu Abdou Ba nekk nañ fi ba sampi kër amuñu toolum ngontal dañuy xëyal sëñ Madou di ko gontal sëñ Madou moom nag damay dikk ci lenn lu yéeme muy biñ demee ba euh, sëñ Modou Moustapha di xalifa sëriñ Touba fekk moom it sëñ Mañaaw jóge na fii muy xalifa sëñ ma Mañaaw sëñ Mudu Moustapha dafa jógoon ñëw ne day gane si kër Mañaaw léegi sëñ Madu ni mbooloo mi na ma jigéen ñi féete ne góor ñi féete ma ne na ñëpp rang ba fu mu yemee baax na na yoon wi yaatu na lépp doon ay sër yu lal itam bu sëriñ bi agsi ku tëdd toogal ñu def noona def noona def noona ba sëriñ Mourou Moussa agsi dëkk bi mu ne nit la mu am lay terle wet sàngam ngay diw taxaw fa diw taxawal fee diw taxawal fee ne ñëpp tari alxuraan sëriñ Mourou Moussa alxuraan laa koy berndeele di ko ko berndeel di ko ko berndeel ba ngan nga àgg ba ngan nga àggee sëñ Moussa ka ma ca àndoon tey bindal sëñ Mourou Moussa def ci bayitam yu yéeme ya yaa ahmadal muxtaar sa mbir mi sax na wallaahi wum nga làmbi doomi soxna teeru ba ànd ak kob taree kob terle fii laa ko gis yàlla na la bam ba farle yaa xam tiraa ngay musta xam xaqam ngir yem ngir yow dangaa am boole kooku xam-xam yile bayit maa la ko woy man Moussa ñaanal ma Cheikh Bamba fegal ma Boussa bi mu defee noonu toll nañ ci waaj a dem sëñ Madou bañ na kii dem te yóbbuwut tontam mu daal di wëlbati kayit wa daal di cay bind fàtte bu waxar raskuran mawlaaka yaa muusa nafsan waxay nan fa lasta dahra saa buusa fa lis muusa wa xayrul kutbi xaafisuhu wa sayxukal mustapha faaraqta iblisa busra liyal yowma lamma kunta xaadimam na muriduhu kaana maxfuran mahrusa inni aqulu wa xawlillahu yashaduhu xabla hmm. taraif antal hibbu yaa muusa kooku mooy sëñ Mudu Muxtaar tanoonee mu séqoon nag hmm. ak sëñ Mudu Mustafaa hmm. sang bu baax bii di waajur wu Serigne Sidi Abdou Lahad Serigne Abdou Lahad ba mu gënee doon ndaw dafa ñëw mu defal ko bayit yoo xam ni fu bayit yi àgg Serigne Abdou ko fa àggale man ngaa laaj mbaa sax ñu ko xamut waaye Serigne Abdou moom bari na ñu ngi ko joxoon ci magi taalibe ci jaareel sama làmmiñ nag te bañ koo firi ndax ñu dégg bayit yooyu nga xam ni moom la sëñ Madu joxoon Serigne Abdou Lahad dafa xadawtu ila sukraani sil fardi wal ahdi xalal malja habdil mudaafi ila ahdi huwa alhabdu najlul qutbi wal xaadimi nabii siraajun muniirun nawwaral ufqa bi rusdi huwa albadru najlul badri umman wa waalidan wa ajdaaduhu min qablihi wa rasul majdi badaali saxiiral jismi wal xaalu musbada badaali ka ahwaali kuhuuli sawil qasdi فخذ لي خريدي ثم كن متجلدا ولست كمثلي لا تساوي ثوي الجهد إليكم ilaykum mursalun saa habibana li maa xultuhu bayni wa baynaka bay fard yàlla na ko suñu borom fayal. macha allah waaw. jërëjëf euh, jërëjëf euh, sëñ Saliou Sylla euh, jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen émission Ëttu yaakaar naa ne ko waxee woon rek li duuf ci nag wi xajandoowul ci mbana gi te itam ku ne xam na ne Serigne Mañaaw waxuma la benn émission ñaari émission waaye mënoon nañ ciy def. fii ba déwén te du tax ñu jeexal ko moom sëriñ Mañaaw Sylla waaye rek junj doy na boroomu xel boroomum xel ki ñu doon dalal moo di sëriñ Saliou Sylla imam bokk ci ay sëtam sëriñ Cheikh Sylla mi ko jur sëñ Madiama ko jur sëñ Mañaaw eh, jur ko loolu yaakaar doy na tegtal kon damay bàyyi ay kàddoom mu tàggatoo ko su ko defee ñu mën a eh, tëj jataay bi incha allahu rabbi waajalaat nag yeneen jataay ci yeneen ëtt waaw sëriñ Sumbul Sylla mooy sama waajur sëriñ Madiama mooy <laughs> waajuram sëñ Mañaaw mooy waajuram <laughs> bala ma koy tëj sëriñ ma paate si mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ ma ñaaw mhm. di ko ñaanal yàgg fi te ànd ak wér mhm. dafa ànd ak sëriñ ma jama ñu siyaar si sëriñ Fallou mhm. mbooloo mi bari lool bi sëriñ Fallou ñaanee ba jóg am ko ne boole jógal nit bu kilifa bu jógee day jóg mooy ko damaa gis sama docteur te tawat sëriñ Fallou ni ko jege sil maximum ko lu mu doon mu ko dama fi bëgg a yàgg te tekki mu tey ci si ki ma ñaan ko ne ko nga fi yàgg da nga tekki allahu akbar koo koy tey ji mooy xalifa sëriñ ma ñaan te sëriñ ma jama moom it di waajuram mm-hmm. ci njaareem dadaa yanu ay reer di ko yët sëñ Mudu Mustafa ak sëñ Fàllu te mm-hmm. booba la ko waral loon mooy ñi ko di yanoo dafa am lu leen ca naqari woon ndeysaan kon ak taalibe rek xew ñaxal dëgg la ak taalibe rek leen bëgg mm-hmm. ak bi rek leen joon maa ngi sant bu baax nag sëñ Fàllu Galaas Si la ak ñi nga àndal ak bi ak waa rajo bi te di leen xamal yéen ku leen ne sant na leen. sant leen ku leen ko waxati sant leen. ndax la ngeen leen di sant seen jëf la. nit ñi la mu jëf ba am ko moo ko moom. macha allah koo xam ne fowut foluwut yàqut yàqalewut. Mm-hmm. kooku faaw nu mën a def suñu borom ànd ak moom. suñu borom yàlla leen gën a jàppale. amiin amiin te yëkkati seen mbir ba àggale ko fu ngeen foogut. te jariñ ci mbooloo mu baree bari ci saa rek baatin barkeb Sëriñ Saaliw jërëjëf euh, sëñ Saliou la xam naa ba la ñuy tàggoo bokk yi ñu sant borom kafe gi soxna maam Fati sama xarit bi gis ngeen ko seen émission Ëttu Murid euh, euh, soxna Fat Dieng waaw sama xarit boobu gis ngeen ko café gaa ngi nii caaf laa ngi nii seen émission Ëttu Murid ñuy sant bu baax a baax sëriñ Saliou la mi nga xam ne moom la ñu dalaloon di sant yi nag sëriñ Mañaaw la Eh, ci kër sëñ Abdou Khadir ziar soxna ba eh, Serigne Bara Sylla moom itam ñoom ñu ngi ñu leen di jaar bu baax a baax ci émission bi lañ bokk yi lii mooy seen émission waa soxna Ndeye Khady Sylla waaw waaw waaw waaw eh, soxna Ndeye Khady Seck waaw xam na ne soxna Ndeye Khady Seck nag waaye nag man sëñ borom kafe gi borom tarmos yi soxna Ndeye Khady maa ngi koy sant waaye borom tarmos yi moom damaa jàkkaarloo ak moom te mooy day sama xarit ma maa ngi koy jaar bu baax a baax di ziare bokki téléspectateurs yëpp nag bokk yi ñu ngi di joxaat rendez-vous ci beneen numéro incha allahu rabbi ci beneen ëtt li mooy ëtti sëñ Tuubaa yi damay wax ne bu ñu waxtaanee Serigne Touba euh, day jaaxal mboola mi wala daf leen di ëpp nañ waxtaanee ci ñi Serigne Touba defar bañ xam ne Serigne Touba mën a sutu àgg ci moom bala ngaa mën a léwtoog mbër mi da ngay léwtoog soq yi te soq yi neexuñoo daan yaakaar naa ne ku waxtaanee alxuraan ku koy damoo. bay bay bay tiitaru ci bu ñu la accès teg la ci sëñ loxol sëñ Mañaaw da nga ne nu te déglu ko yaakaar naa ne ni ni nga ko waxee woon léegi sëñ Mouhamed Lamine Gaye xalima ga fa muy bind du wuuteeg du du bokk fa làmmiñ way tudd te làmmiñ wa du yàqal xalima gi xalima gi du yàqal làmmiñ wi mm. kon dañuy xam ne sëriñ Tuubaa defaru gi ci moom la nekk kon bu ne alquran maa ko moom man la ko yàlla doon loo man la ko yàlla sa Euh, lu mu ci wax rek euh, njabootam dëggal nañ ko ñi ngi santaat bu baax baax di leen gërëm di ñaanalaat sëriñ Sidi euh, yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram nangu naa ci laa meñu waaju baax mu ne sëriñ Sidi li ngay xamal ne ëttub alxuraan ci la gënee àdduna bis bi muy gënee àdduna sëriñ Abdoulahad kaamilub alxuraan la ko gàttandoo ndax dafa wax ne suñu borom mi ngi may bëgg a jox gan goo xam ne bëgguma mu wàcc ci lu dul alxuraan bi ñu muy wax minal jinnati wan naasi na muy góor kon alhamdulilahi rabbil alamin a baax di leen gërëm seen

lii fiika yaa laahum bismillaahi fiinin ak daara yaa laahum safi baqaa abihim lii fiika yaa laahum yaa man lahul amru yaa man